liggéey bi bi mu arrêté ak léegi ma daanaka mat na toll ci ñetti at booba ak léegi askan yombal Malika Kër Massar Thiaroy ñu ngi daw ci gannaaw bile projet gouvernement bu Sénégal jëloon ay dogal ne bu 30 juin jotee ñoom gouvernement bi dinañ dooraat liggéey bi e, tey ci suba gi ñu daal di doxantu fi tollook marché benn baraak waaye ñu gis ne fourage daal di xëddën ba jamono ñu yàlla tey jii amut lenn loo xam ne day màndargal travaux yi dañ koy dooraat. xam ni ñoo ngi dund difficulté bu metti jànkonteel ay poussière embouteillage ak ay sog yu bëree bëri ndaxte benn vois bi amul ñu sens benn vois bi dafa gën a créer situation dafa gën a créer ay ay accident ay lu ne deuxième fois vois bii ñu fi bàyyi defaluñ ko yokku na poussière bi yokku na feebar yi nawet bi di ñëw suñu premier taw bi taw fii dafa inondé tellement nit ñi mënuñu fi jaar léegi kon ci benn vois bee la nit ñi di dox dafa kase lépp yàq liggéey empêché nañu si lu bëree bëri bëri vraiment li ñu waxoon gisuñu ko ba tax na askan wi ne ñoom la gouvernement bi digoo leen ak ñoom gannaaw bi ñu defee seen marche bu am doole boobu gouvernement bi sàmmoowut ak i kàddoom ah ba léegi de defuñu fi daal affaire bi daal sama woon mbiru politique la rek mbiru politique la daal di naxasal bëti nit ñi rek waaw waaye tali bi moom na meloon daaw jeeg ba léegi nii la mel bu gënte yàqu sax ni ni melal mu njëkk ñu bàyyi woon ko moo gën waaw waaye gis nga ko ñaar deux baay yëpp dañu waxoon ne dañ koy defar mais benn waa fu ne nii presque normal sax gis nga beneen waa bi gis nga ni mel ay jaaykat ñoo fi ëpp waaw xam nga loolu moom arrangé wul kenn ah, kilifa yi dañuy li ñuy wax li ñuy wax dara amut ci parce que boo amoon ñu jéem ci dara sax ñu xam waaye dara duñ ko ci def. mu nekk ab liggéey boo xam ne soxla nañ lool ñu daal di ko dooraat ndax suñu digganteeg nawet bi daanaka agsi na lu ko mooy itam poussière bi mu doon loo xam ne da leen di sonal lool. gis ñu suñu bopp moom gis ñu suñu bopp bu ñuy xëy si moom dañuy am coono aussi su ma ñëwee sama place ay birig laay teg pour mën a jàll daal ndax ndox mi. poussière bi tamit man man nii di wax ak sax damaa soj ñetti fan a ngi nii yàlla xam ne damaa soj. wax sax mënu ma ko gisoo ni mu dee ndax poussière bi doy na waar daal. boo fi indi doo ko jaay ndax poussière. fii lañ doon lal ci kaw trottoir bi dafa liggéey ñu dàq ñu jëlee ñu fi gi nga fi ñu baax boo jël ñëw teg ko fii poussière bi yàqate ko doo ko jaay doo ko def lenn amoo nen noo ko def gis nga yombal moom lépp yàqu na nañu dimbali li lay war a sol ñu defaral ñu yoon bi ñun bu ñu defal dara itam ñu yoon yoon bi normal poussière bi moom franchement métti na moom métti na trop si ñun mais nag sant yàlla fii lañ am mënuñuy dem feneen fii lañ am mais buñ sañoon tamit ñu defaral ñu fii wala ñu wutal ñu foo xamante ni daal dañ fa mën a nekk waaw pas ñi nekk si poussière bi mu ñu sonal. xam ni fii ay doomu réew mi ñoo fi dëkk ay liggéeykat ndax gis nga marché baa ngi nii marché Bembey ak zone bi yëpp presque moo fi marché à part marché Malika et tout sonn nan sonn nan ba fa sonn yam di woo président bu dee mi ñuy dégg vraiment si kàddu ñëpp mu ñëw dimbali ñu jàppale ñu vraiment defal ñu suñ tëli bi. président Macky Sall ñëw na lu yàggul dara fi nga xam ne moo nekk Mbëbës nekk ci biir diwaan bu Malika ñoom askan wi yeewoo benn barak ñaawul nañ lool li tax président Macky Sall ñu jaarale ko ci VDN bi. dañ defar tali bi su sama essence yoo yëmbal président ba may ñëw waruñ ko woon a jaarale VDN di ko jaarale ay Malika président VDN lañ ko jaarale jaar ko Malika mu dem Mbëbës fii lañ ko waroon a jaarale tali tournalu yëmbal lañ ko waroon a jaarale ko tali Diallo. jaarale ko buntu Pikine la waroon jaar mu jaar teg saako jaar tali Diallo dem Mbëbës mu xam baaleen bi lu ñuy dund tali bi lii dafay yàgg lii président na ko gis na ko xam nañ liggéey tali bi nañ dimbale baaleen bi nit ñi sonn nañ quoi. mu nekk loo xam ne lu métti lool ci askan wi fay yeewoo ndax ñoom dañoo jàpp ni dëkk yëmbal di fu mu tool nii toroxtaange dëgg la saa yoo demee centre ville rek booy ñibbisi taxi boo ne yëmbal rek dafay lànk ngir jàpp ni yoon wi baaxut te sant yàlla. yoon baa ngi nii gis nga bañ ko dajee léegi mën na 4 ans xaw ma 5 ans dañu waxoon dara amu ci waaye yëmbal gis nga ci nii dufaranke bi ñu nekkee yow boo génnee fii dem biir Dakar taximan boo arrêté boo na ko yëmbal laajam du la sax wuyu ndax xam ne foofu kenn mënu faa dem yëmbal moom daa dee ba suul gis nga ci nii lii kenn ku nekk boppam defaruñu yoon bi defaruñu lenn lu ñu diggee bañ ne dinañ def nangam nangam yow yaa waxoon fii ne nee na xamal la 30 juin la ñu xaw ma tey ñu yëmalee 30 yow gis nga fii dara gis nga fii sànce gis nga fi ku gis nga oto bii nii fi mu gaaree fii mu gaaree léegi na ñaari at kenn dégage bu ko. yoon wi bañ ko xalee ak léegi daanaka mat na ci ñeenti at askan wi nag ne dañ ciy sonn te dañ ciy tàyyi ndax saa suñu leen diggee rek duñu respecté seen i kàddu. sànc yi bëri na ci ruq-ruqaan yi nit ñu sonn nañ bàyyi li ñuy dund sonn nañ inondation bi métti na. mais jàppewu ñu nit ñoom dañuy jàpp benn falaa falaa benn ñoo xam ne nii bokkuñ ci askan bi loolu la ñuy jàppee rek mais boo duggee ci baale bi nii gis nit ñi lu ñuy dundee ca ay néew doole rek ñoo fi dëkk ay góorgóorlu fii ay liggéeykat ñoo fi dëkk ñàkk jëriñu lañ xam yaa ngi dégg xoolal femmes yi seen yi ñëpp bëgg a liggéey nañ leen nañ leen état bi jàppale ñu liggéey ñun milliards yi ñuy dégg ñu naan jox nañ ko askan beeg may nañ ko réew meeg milliards yeeg gisuñ ci dara yëmbal benn barak Malika gisuñ ci milliards yi dara man de gisuma ku ne milliards yi Macky Sall doon maye jox jot na ci fukki dërëm liggéeykat seen yaa ngi nii laaj leen gisuma ku ci jot fukki dërëm ñi ay jaaykatu fëgg jaay lañ ñi jaaykatu tiisi ñi jaay accessoire yi gisoo ci ko yor fukki dërëm te ñuy ñëw kenn ku ci nekk waroon na nañuy ñëw dolli la dolli sa busin nga liggéey nga jënd bagage yokk sa matériel yokk sa bagage liggéey mais amul ci kenn ku ci jot benn dërëm. yoon wi bañ ko xàllee ak léegi daanaka léegi mu mat ci at waaye boobu ak léegi kilifa yi dañ leen di dig bu ñu demee ba ci càppaandaw ga duñu gis dara. Euh, ndakaaru wala ay jam ñaajo yooyu dëkk bi dëkk baa fii nit ñaa ngi fii ci dëkk bi jam ñaajo kenn dëkku ko fa lan fa def yëpp d'accord baax na mais amul kenn ku fa dëkk ku dul baadoo la bokkoo fa kon ñun baadoole li ñu am li suñu problème mooy nañu defaral télé bi bon dafa defaral ñu yoon bi et puis mu xoolal nu transport bi transport bi fu mu dara baaxu ci yoon yi dara baax ci nit ñi dañuy dankalu ko gudde bi tàngaay baa ngi ñëw nawet baa ngi ñëw fi mu toll nii ñu ngi ci problème yoo xam ne kenn xamul ci lu ñu nekk waaw dëkk bu pëcc xoolal ñu mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koy jànkonteel saa su nekk ñoom askan wi yeewoo diggante Malika Kër masaar Yëmbal Caaroy ñu ngi yëkkati seen kàddu di artu gouvernement bu senegal ngir mu daal di indi saafara ci ni mu gën a gaawee ndax fu mu ne nii kat buñ ne Fuuta Tampi waaye ñoom dañoo jàpp ne Yëmbal maa yi. waaye yoon bi moom métti na métti goo xam ne gii nun dañuy wàcc Fass Mbaaw sax guddi ne Yëmbal la ñu bëgg a dem lañ lay doo ko attan ba daanaka da nga fay fanaan koo wax mun lay yëmbal yoon bi baaxul nun nan nu ci jàppale te yàlla ak yonante bi rek tax mu liggéey ko te yàlla tax nun loolu rek lan koy ñaan tukulóor yi dañ ne fuuta maayi waaye fuuta maayi wut yëmbal moom maayi yëmbal moom maayi yëmbal moom maayi askan wi nga xam ne ñoom ñoo pegg route de Niayes bile ñoom ñu ngi dund ci ay jafe-jafe yu tar rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo fare diggante Malika ak yëmbal ndax diggante station yëmbal bi jàpp Malika poussière boo xam ne bu leen sonnal lool gouvernement bu Sénégal daje woon ñenn ci seen biir ne leen juin bi ñu jëm dinañ saafara seeni jafe-jafe amuti benn xeer boo xam ne teg nañ ko fa bi mandargal ne travaux yi dinañ ko amal ci 30 juin bi nga xam ni ne ñoom ñooy yeewoo ci route de Niayes bi